mi haalanana mi mi tottirani ay gooama mi haalama <laughs> voilà en tout cas daal franchement astuce yu baax na dimbali ma loo ci utiliser ah <laughs> astuce loo ci utiliser astuce mon digital gaay gaay ñi ñëw di daanoo fakastal nee nañ la wax leen lan la doon fakastal fakastalu ah eh, man ngaaka di tërëf di faqastalu di daanu ñu koy jàpp lës di jàpp idi di jàpp ngaaka nit mënul taxaw loo def non non man gisuma loolu de loolu dafa xew foofu xew na fi ah ki doon ah, ay alee man kenn du man <laughs> ay baat eh loolu de loolu leneen la gars yi nee na question bi la ñëpp gars nee na question bi la ñëpp doon xaar ma posé ko lan moo tax ngaaka daanu non dama taxaw si balcon bi suñu bëti tase mu tiit parce que instant boobu noonu yàlla xam nga fay marié wu gën a rafet <laughs> rafetaay boobu yàlla defoon ci man si sama mariage tiital <laughs> waa xale bi yow bu fen yow ki moo kàcc yow bu daan kàcc yow maanaam daal dafa wàcc oto bi seen la rek mm-hmm. waaw mu tërëf mu tiir mu ne sii xale bi dafa gën a rafet xam nga yàlla da lay def sama fooy mari yow da ngay. <laughs> loolu ah ñu jàpp loolu rek mën nañoo jàpp loolu ndax loolu tamit c'est raisonnable. mais nañu fexe ba beneen version bu amee buñ ma vaar. Ah, ah, ah yaa ko fi yaa fex say kàcc dañu koy enregistré xale yaa ngi nii di ko enregistré soo fi waxee lu neen wala sa jëkkër wax fi lu neen dañu lay vaar. waaw hmm? waaw loolu ngay say doom say doom sa sa ñaari doom yi loolu ngeen di dund seen kër liñ ma mbugalee woon fii keroog sama kër yi xam ngeen xam ngeen lu ma def fatal dimanche passé dama kaa jël damaa jël sama doom yi yóbbu ko yóbbu ko këram ban heure lañ fa ñëw du dix heures xaw ma onze heures à onze midi yooyu damaa jël xale yëpp sama doom yëpp yóbbu leen këram na leen kaay leen yendu ji kër tata fatal man fekk man damaa fas yéenoon dem taxawaalu ji dund sama lu ma neex maag samay xarit ñu def suñuy bongo def suñuy fecc ma jox Fatel xale yi ba vingt une heure nekk ci àddina bi di def lu ma saf Fatel di dund lu metti lu méttee métti métti astu sa doom yi sa doom yi mënañu ma astu tata je veux manger tata j'ai faim tata ju tata li tata faralak euh. faralak sama perruque parfum yi ñu toj parfum élage <laughs> El Hadj de waxuma la El Hadj xam. di ma def xoolal maa ngi tëdd xoolal musuma dëgg naa nelaw ngoon dañ ngoon sama àdduna dama sonn tëju ci néeg bi de junior ñëw tijji beneen bi naan ko génn mu naan ko non non pas sortir xel bi di ma def koo xam ne si biir kër gi astuce pendant ce temps maa ngi maa ngi maa ngi dem sama benn genre ay bon